حملني ووالدي وأشياء وليس لي عمل ألقاك يا عملي سوى المحبة والتعظيم وزمان على نبي

ربنا في كون خدمتنا بدعة غير لا لدى

سيدنا وقبل شفاعته فينا ولدنا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما آمين خديجة وعلي وابن حبشة ومن بدعوتي سبع النبيان نون على نبي ثم ابن عوف وسد صاب يا لخي شكا صاب يا لخي شكا صاب يا أبو بكر صاب يا أنا عمر صاب يا أنا عثمان صاب يا أنا علي صاب يا loxo yi ca kaw saaba yi soppi seen Babacar Si soppi seen Babacar waaw soppi alxaaji Mansour yaa rasulallah yaa rasulallah ñu rasulallah yaa rasulallah waaw waaw rasulallah yaa jaara màggal borom bariiru or bi rasulallah magal mooy waa ji yaa rasulallah ah yaa rasulallah waa yaa rasulallah yaa jara sargal ay waay yaa rasulallah waa waa yaa habiballah waay yaa rasulallah يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا جارا مدل برام أربا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رمجل أيوة يا رسول الله cheikh asan yow laa ko may yaa rasulallah yaa jaara màggal ana ñu bëgg ziyaari seydina muhammad yaa leen yonent yaa leen a mat yaa leen a raw sama yonent yaa rasulallah yaa jaara màggal kenn du sang bi ñi lay karikatiiri xamuñu kuy Mamadou Lamine yaa jaara màggal yaa jaara tantal ay waay ñi lay karikatiiri ñi lay këri këri ragalanu kuy Mamadu Lamin yaa jara màggal yaa jara tantal maliki yaa ñi la tantal ñii ñoo xam daraja yi yonent yaa jara magal yaa jara tantal kenn du yonent bi moo nu gën nday moo gën baay ku ci d'accord sa loxo yi ca yaa jara magal yaa jara magal tudd ca Madina tey jey Madina way man màggal la ko gisee ya rasulallah oh, oh, oh. yaa jara magal ah bu la neexoon nga ut bis bisu yonent bi la gënal ya rasulallah yaa jara magal moom Maodo nu nu xamal yonent seen Babacar yaa nu xamal Cheikh di jote woo yónneen bi amul moroom yaa jara magal déglu ma nettali leen ya rasulallah woo njëlbeenu gu yónneen yaa jara magal balaa neex foog mu metti lool ya rasulallah woo yónneen bi amul moroom yaa jara ma dem bi yónneent bi wootee Makka yaa Rasuulallah noon ya sonal yaa jara ma muy naa dem kon sama kër ndi jaay yaa Rasuulallah ndax màkka ñoo bañoon yonent yaa jaara màggal mu ni leen yàlla ma yaa rasulallah woo noon yi naan ko déedéet yaa jaara màggal Maam Maodo moo nu ko wax yaa rasulallah woo Mustafa yow de amoo morom yaa jaarama nabi dem na kër di jaayam yaa rasulallah woo mu daal di toog ak ñoom yaa jaarama Cheikh woo yàlla ñu naan ko xaaral ñu ñëw dem woowi xale ya yaa rasulallah ah, ña nga jëli dof ya يا جرام كرني جايم نيوم نيغا جلي يا رسول الله فسيني ترخل يوني yaa jara màggal ñu daal di génne yónneen bi yaa jara màggale xale yaa ngi ay xeer yaa jara màggal xale yaa ngi koy ay xeer yaa rasulallah dof yaa taxul yonen bi daw yaa jara màggal Zayd ibni Haarisa la àndal yaa rasulallah ñi kay sonal noon yaa jara màggal cheikh Mamadou Malick nee na yaa rasulallah la fa xew ëpp naa nettali yaa jara magal yàlla naan ko yónneen bi yaa rasulallah woo boo bëggee léegi ma ñëw yaa rasulallah soo bëggee ma alag leenu yaa rasulallah woo yaa jara magal yonent bi soo bëggee léegi maray leen yaa rasulallah woo mu naan ko buur yaa rasulallah woo oh, eh sangu àddina yaa jara magal soo bëggee léegi ma rey yaa rasulallah oh. léegi ma rey yaa jara magal damay boole ñaari montagne yaa rasulallah oh. léegi ma àll ki leen yaa jarama Ibrahima mu naan ko buur yàlla baal leen yaa rasulallah woo Mustafa yow de amoo morom yaa jarama xoolal li ko buur yàlla fayee yaa rasulallah woo maam Maodo Malick ñëw yaa jarama def fukki burdu noppaloo yaa rasulallah do oh, tantal na yonen yaa ja doomi abdalay doomi abdalay doomi abdalay doomi abdalay doomi abdalay aminata yaay aminata yaay aminata yaay jaawa aminata yaay aminata yaay jaawa alimato alimatu yow yaa nampal yonen alimato alimatu saandi yaa nampal yonen doomi abdalaay jaawa bëgg yónneen loxo yi yónneen iman ku bëgg yónneen loxo jàkka yónneen iman yéen yéen la ayata yónneen iman ku ci jëlee sa loxo yi jàkka yónneen iman ku ci jëlee ci daral loxo yi ca kaw yàlla na ibbal wati tuuram yàlla yàlla na yàlla na ibbal doo paase yi baax na yàlla na ibbal ba ñëpp di nelaw yàlla ñun du nu nelaw dañuy xalaane te du yàlla yàlla na ibbal Moustapha jar na ko yàlla na ibbal bu ko ci jaare sa loxo yi ca زملائكم yëkkatil sa loxo jël benn igul yëkkatil sa ñaari loxo jël benn igul jëlal oto dem Tiwaawan ziyaare Maam Maodo jël benn igul Babacar Khalifa Ababacar jël benn igul almatoor yàlla gërëm amiin def moom Ndakaaru def fa gaynde ga simbene amee dana gaynde fa gaynde simbene di doomi soxna ya dembo simbene di bak noon sutuma ga simbene di cheikh du mer ba teya di di jàll ma tum du yox yoxi bak noon sutuma ga simbene di يا ربي صل على المحمود سيدنا واقبل شفاعته فينا ولم ندم على النبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بسحبه

ربنا في كون خدمتنا بداعة